bëggee di jot ci vidéo yi am njariñ yi bàyyi ko fii ci sama diine TV dangay ñëw bés fii ñu bind sabone soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njariñ du la raw. ci sóoratu yaasin. waaw da bind benn boo xam ne da koy maas lépp li ci war a am mu am mm-hmm. bindaat benn sóoratu boo xamante ni nii doo ko maas doo ko tomb. Mm-hmm. bindaat beneen sóoratu yaasin boo xam da dangay tàkkale araf yi. Mm-hmm. bu dee am nga ndoxum taw nga jël ko bu dee am nga ndoxum zam-zam nga jël ko. di ci sangu di ci nan sunu borom mi nga xamanteni ni mo la tegon tawat jooju mhm. dana la ko teggil ba mu set wicc Alhamdulillah. mom suratu yasin mom suratu yasin waaw pap mhm. waaw loolu bu la dalagul man mhm. nga fexé tamit di bind suratu yasin di nan wala nga koy tari même boko meunte bind nga koy tari di euf ci ndox di jox sax njabot ñu ci nan di ci diwu sunu borom meun na leen dimbali ba di leen ar ar karange go xamanteni ni bu kéemaane lay doon. mais ñi nga xam ne mokkuluñu ko mën nañ leen koy bindal. mën nañ leen koy bindal ñu koy ñu koy. ñetti sooratu yaasin ñetti sooratu yaasin. ñetti sooratu yaasin. yaasin képp koo xamante ne ni sooratu yaasin am nga aajo. Mhm. ak lu mu ci mën a doon rek. Mhm. aajo bi bu mu mën a doon. soo mënee jàng ñeent fukki sooratu yaasin ak benn nga jàng ko soo ko mën mënta jàng nga wut ñu la ko jàngal nga neexal leen ñu ñaanal la ci sa aajo jooju suñu borom dana la fajal aajo boobu. Mhm. ki nga xamante ne nii yàlla dafa dogal ñu liggéey ko. liggéey bu bon boo xamante ni nii xamul lu koy lu ko dal mën na koo teg feebar mën na koo teg ñàkk mën na koo teg muy énervé saa su nekk. Mhm. bu fekkee sax mën naa nekk léeg mu nekk ci bureau du xam ci bureau bi dara bu génnee nekk ci jàmmam. Mhm. bu nekk ci kër du am jàmm ci kër gi bu génnee bu génnee kër gi am jàmm. Mhm. yooyu yëpp xeeti liggéey lay mën na mën na koo doon bu bindee sóoratu yaasin. boole ko aaya boobu ñaa warada lazina warada allahu lazina kafaru bi hayzihim lam yanaalu xayran wa kafa allahu muminina xitaalan mhm. wa kaana allahu xawiyan azizan ba mu jeex mu boole ko juróom-ñaari garabi xay yoo xam ni bokkuñu juróom-ñaari garab juróom-ñaari garabi xay yu bokkul mhm. mu sangoo ko juróom-ñaari guddi mhm. sunu borom dana ko dimbali loola deñ bu bëggee di jot ci vidéo yi am njëriñ yi bàyyi ko fii ci sama diine tv da ngay ñëw bés fii ñu bind sabonné soo noppee nga daal di activer cloche bi mooy waral benn njëriñ du la